ñi ngi fii tey ci ya ci liggéey boo xam ne nii ñu ngi ko commencé woon lu tolloog weer ak euh, ñaar fukki fan ci tey ji muy ay garab yoo xam ne ñu ngi ko fi jëmbat muy garabi xott biteel lu tolloog ci mille cent cinquante garab ci alantu ci biir Baxiya ànd koog nag euh, association bi nga xam ne moom lañ jiite muy association Nourou Darayni pour le développement de Touba l'ONS ak mboolem association yi nga xam ne ñi ngi bootu ci Touba ca kanam ànd ak ñoom ci liggéey boobu kon di wax ne rek liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def fekkoon na ci association yi ndax bu buñ xoolee suñu association bin xam mën na ne moo jiitoo Touba ca kanam ci benn at waaye bi Touba ca kanam juddoo dafa ànd ak ñun ci objectif bi nga xam ne moom la am ndax yaakaar naa association buñ créé ci Touba bu ne benn objectif la am muy développement ci nga xam ne mooy quartier am kon buñ gisee kanam am vision boobu dañuy ñëw fekk si ko ànd ak moom parce que moom moo ñu ëpp doole ci loolu moom moo ñu appuyé ci lu bari. ànd kook la commission environnement ci mission bi nga xam ne dénk nañ ko dénk nañ ñu ko ci dëkk bi mu jëm ci reboisement ak nettoiement ñu tàmbali woon nag phase chantion ci reboiser fii nga xam ne mooy barab yi nga xam ne euh, fii la ñuy mujj ñun ñëpp yàlla na yéex di ñaan ñi fi nekk yàlla na leen suñu borom jégal te yërëm leen. ñu tàmbali woon ko ci ay garabu eucalyptus ndax gis nañ ngelaw la gis ngeen ni mu bare te ñàkk garab dafay dafa dafa dul protéger nature bi ñu prévoir woon pour alentour clôture barab bi yëpp ñu jëmbat ko mu toll ci deux kilomètres cent cinquante mètres tey ñu nekkoon ci phase de d'échantillon prêt pour produire fii au minimum euh, quatre cent arbres di xool euh, nan la ñuy def ak cet échantillon di ko entretenir pour xool développement am ni muy demee entre temps euh, ñuy mën a am solution bu durable pour di ko irriguer sous forme de goutte à def nañ euh, demande bi envoyé nañ ko kuréel Touba ci kanam rawatina la commission finance ñu koy xool xam naa ne ñu ngi leen di interpeller ci ñu gaaw ci ndax danañu permettre ñu mën a jàppale garab yi ci wàllu arrosage ndax ku wax garab wax ndox te période bi ñu toll xam nañ ne période noor la dëgg noor sax lañ toll mais foog na anticiper ndax bu ñu bàyyee garab yi ci pépinière bi donc day dépasser niveau pépinière te bu dépasser niveau pépinière te planté woo ko mën naa bëri ay risque de mortalité donc moo taxoon ñu ñëw fii tey commencé cette phase d'échantillon mu toll ci cent arbres ñu ànd kook association Noura Darayni Euh, bi nga xam ne ñoom Serigne ma Ndao ñoom ñoo ci nekk pour le développement de la pour le développement de Touba Loyenne waaye aussi pour le développement de la ville de Touba ñu nekk ay nit ñu jàmbaar ñu dynamique ñoo xam ne depuis boobu ba léegi tayuñ benn yoon ñu ngi ànd ak ñun toujours. programme prévisionnel la ñu def programme boo xam ne li ko tax a jóg mooy reboisement gis nañ ne euh, lii di Bakhiya li ko wër lépp nekk na au moins lu mat deux kilomètres ñu war cee jëmbat. Euh, mille quatre cent wala lu ko ëpp ñe junni ak ñeenti téeméer ci ak xottu butéel léegi quatre cent yi jëmbat nañ ko gis nañ ne comme jàpp na mais li nga xam ne nag mooy sunu problème mooy njëmbat da ngay am da ngay réunir toutes les conditions conditions yi yi ñuy war a réunir mooy am ndox rek bu amee li ci des yëpp dootu doon problème ndax bu dee euh, mais d'œuvre bi am na ndax noo ngi ànd ak Baye Fall yi ak ñoom suñu Bamba Ndaw ñu dynamique ci fii nu toog rek xoolal ngelaw li mu te ngelaw lan lay indi érosion éolienne mu ngi fàkk suuf si dégg nga kon bu ñu fi jëmbatee lu mel noonu dañuy xam ne ngelaw lay tax ñu koy jëmbat euh, la ca des mooy nun ñii rek li ñuy noyyi mooy oxygène bi ngelaw lii bu jógee day ànd ak gaz carbonique co leer l'air est de gaz carbonique co boobu nag bu ñëwee garab gi mooy téye co bi jël carbon bi oxygène bi ñu nu koy noyyi xam nga kon li mu njëkk a jëriñ ci doomu aadama mooy loolu oxygène bi kon loo tax jëmbat garab am solo lool kon li tax nag liñ ci war a def nag mooy indi conditions yi nga xam ni war na ko réunir ñu mën a am ndox am ndox rek mooy problème bi su amee ndox bu soobee yàlla parce que bi ñu jàmbalee euh, jëmbat àllarba euh, ba nëgë ni daanaka boo xoolee ci trois cent et quelque onze moo ci euh, mel ni lu jàpput te onze yooyu dafa nekkoon garab yoo xam ne dafa dem ba reen bi génn ba dugg ci suuf si kooku même boo ko bàyyi ci pépinière bi day dee mais li ci des yëpp jàpp na kon reboisement bi loolu la noo ngi war a euh, indi fii mille quatre cent mètres linéaires am na sax ñu ma ne yokk nañ ci cinq cent mètres ci côté bëli kon léegi daanaka dana ëpp euh, euh, ay dana yegg deux mille kon loolu lu am solo la nit ñi war koo saytu ci fépp nag.